يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك mbokk soppe yi maa ngi leen di nuyu di ñaan yàlla suñu boroom koor gi yëpp yàlla na ko yàlla nangu yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar euh, nit ñëpp ñu ngi daw wala ñu ëpp si nit ñi daw di wuti alal ñii wut alal wut koom-koom jaral na leen ñu rey nit jaral na leen ñu fen jaral na leen ñu sos jaral na leen ñu sàcc jaral na leen lu ne nañ am alal rek nuñ ko mën a amee baax na yonent bi sallallahu alayhi nee na ki woomal dëgg nag mooy ki doylu nit ki boo doyloo la ngay wut dinga ko wut ci anam gu dagan dara du la tiital alal lu mu bari bari su fekkee sellul doo ko soxla te du la saf ki bëgg am alal dëgg-dëgg na tàmbalee ci doylu nit mën naa am alal ju dul jeex a jeex te fekk dafa tiit di rëf-rëfi bu tëddee du nelaw parce que dafa ñàkk doylu nit am lu tuuti rek yàlla def ci barke mu doylu moo tax yonent bi doon wax naan laysa al-ghina kasratul arad nee na koom nekkul nga am lu ne gàññ ay oto ay kër ay compte bancaire ay bien matériel nee na walakin al-ghina ghina an-nafs koom-koom dëgg mooy nga doylu nit nag su bëggee nekk jaam rek na ñàkk doylu su bëggee ñu toroxal ko na ñàkk doylu dañuy wax ne alalu riba lu mu yàgg-yàgg safara lay toje bari na koy gis tey alalam bari fekk alal ja fa muy mujjee moom boo ko xamoon bu dee ay milliards sax suñ la ko joxee doo ko jël nit ñi jéem a doylu doylu dina tax nga sàmm sa diine dina tax nga sàmm sa ngor dina tax nga sàmm sa dignité alal lu mu bari bari su fekkee lewul daganul ëllëg jafeñ-jafeñ la lay indil ndaxte dërëm bu nekk dinañ la laaj foo ko jëlee waaye boo paree tamit dinañ la laaj alal ji fan nga ko dugaloon kon yal nañu yàlla may doylu yal nañu yàlla may li ñuy am ñu koy amee fu dagan buñ ko amee fu dagan ba pare yal nañ ko dugal si fu dagan di leen ñaanal kooru jàmm di leen ñaanal yàlla tawfiq di leen ñaan yàlla defal leen jàmm defal leen sutura defal ko seen njaboot seeni xarit seeni soppe lakum minni alxub wa duaa wa salaam يا نبي سلام عليك يا رسول سلام